waaye tamit boo déggee turam moo xam ne il faut bu si li ambassadeur nga xam ne tamit depuis toog ngir population bi salaamaaleykum Cheikh ñu ngi lay nuyu. waaleykum salaam Mansour maa ngi lay fay di nuyu population sénégalaise bi yëpp di nuyu toute l'Afrique di nuyu tout le monde entier y compris les femmes les enfants comme nous ñu may l'ambassadeur des fois ñu ne l'ambassadeur des enfants des fois ñu ne l'ambassadeur des femmes donc je suis l'ambassadeur de tout le monde je suis la vérité toute la vérité ci la ñuy donc ma artiste musicien maa ngi nuyu daal euh, Sénégal euh, exceptionnellement exceptionnellement hmm. moo tax ñu daal di koy l'artiste tey dina am am ak moom waxtaan bu am solo euh, mais fi ñu dooree li di waxtaan rek mooy boo bëggoon wax mbokk internet yi kan mooy Cheikh. waaw Cheikh Mbengue buñ ko tënkee mooy c'est un enseignant boo xamante ni ah, <laughs> dugg ci musique bi <laughs> waaw mais mais c'est normal c'est normal parce que parce que un enseignant qui fait partie d'une famille artistique boobaa dama cee judd dama cee judd mais en même temps aussi euh, suñu famille ñëpp ay enseignants lañ presque tamit mais dama koy wax souvent dama naan l'artiste c'est un enseignant donc amul réeroo même même même bien bi la képp koo xamante ne yaa ngi artiste yaa ngi nekk artiste yaa ngi jàngale nit ñi di la xool di la suivre di la déglu comme Thione Seck dem si yàlla si waaw Thione Seck nga xamante ni ah, ci famille bi la sama famille la bokk moom da doon enseigner boo déggee ay parom yàlla ko suñu borom xaaree àjjana suuf sedd ci kawam yàlla may ah, sénégalais yëpp xolu muñ donc enseignement bi ma nekkoon ay bind di ma ci dikkal tout le temps ma bokk ci famille enseignement comme ni ma la ko waxee donc message yoo xamante ni il fallait que ma véhiculer ko ma am lu ma xam ci musique donc jox ñeneen parce que boo seetee ba may enseigner maa ngi yor tamit ay artistes di leen ménager mais en même temps dama daan sacrifier wu jël sama lépp jox leen jël sama mbind jox leen leneen ak leneen téye sama bopp nekk ci enseignement bi. ma dem jusqu'à 2014. affaire nag ne ma foog nga dugg foog nga ñëw. <laughs> est-ce que c'est facile. Mhm. maintenant nga daal di nga daal di boole lii di euh, enseignement bi ak lii di musique bi. bon c'est pas difficile parce que génnul gaal gi daal mhm. nan dërëm gi génnul gaal gi. Mhm. parce que comme ni ma la ko waxee bind la li ngay bind man pour te dire samay inspiration yu bëri maa ngi koy jëlee à l'école avec les enfants ainsi de suite des fois il ngay yi ngay yi ngay dajee inspiration là donc suñu nee man l'ambassadeur lañ ma woowee musique c'est de l'enseignement musique c'est une musique qui est révolutionnaire waaw donc euh, génnul ba léegi ci milieu enseignement parce que su amul sama nous sommes boy dégg te doo ci jàng dara donc c'est pas que damay glorifier wala dara mais samay musique yëpp yëpp yëpp ku ko mënti déglu di nga am loo ci jàngat loo xamante ni doo ko déggu ci yeneen musique yi amaana parce que ku way la massacre de Thiaroye bind ci bind histoire bi yëpp ba waa RFI France 24 di ko jàllale donc kooku noonu am na lu mu def am na lu mu wax pour la population sénégalaise mm-hmm. kon kooku ambassadeur la parce que ñi nga xamante ñoo defoon tor boobu tek ko suñu maam buñ bu demee bay jàllalewaat message boobu di ko teg en boucle sur le radio donc y a quelque chose ku way ci euh, le phase du jola bindaat histoire bi yëpp nga xamante ni fàtte nañ ko 20 ans mu ñu ngi koy waaj a feete vingt euh, kii bi euh, commémoration bi le 26 septembre bi di ñëw mooy doon 20 ans après en plus te ba léegi bàyyiwu si xel ba léegi si daloon waaw est-ce que da nga jëm pour fan de ko Sénégalais que. Mhm. amone yalla tere yàlla tere mun na amaat il faut ñu gis ay leçons. voilà donc il faut tamit ñu ñu mu mu doon lu ñu immortaliser pour ñi ni di ci jàngat ba léegi. donc yaa ngi gis loolu aussi euh, dafa bokk ci musique bay buy enseigner musique boo xamante ni révolutionnaire musique boo xamante ni euh, amaana mën na mën mën nañu wax ni am na taxawaay boo xamante ni ñëpp mën nañ ci mën a jël leçon yeneen musiciens yi pour mën a topp voix boobu parce que ça nous manque ça manque ici au Sénégal artistes yoo xamante ne comme ñu mel ni ñoom Thione Seck Youssou Ndour ainsi de suite nga xamante ni musaan déglu seen musique dañ ci jàng lu bëri léegi mën naa wax ni loolu mi ñu xaw a réeree tuuti parce que damay bañ ñu dugg si mm. wàllu musique oui, parce que parce que àgguñ foofu mm. euh, mais yaa ngi naan Cheikh ambassadeur mais ce zaay lu bëri ñu doon tuddee euh, peut-être artiste engagé peut-être même littérature sax na naan artiste engagé pourquoi le mot ambassadeur et non engagé bon ambassadeur Moy, euh, ça veut dire que je suis le représentant de certaines euh, qui yoo ont ni personnes yoo xamante ni wax ni ñi ngi ci vulnérabilité ñi ils sont sans voix me donne leur voix me yag ci nekk à chaque fois amener na ñoo xamante ni buñ ma daan buñ ma daan sax dañ vraiment ambassadeur nga ku mel ni sama copain Ibrahim Thiam heure mu saan déglu sama musique dina ma yow vraiment ambassadeur nga parce que ni nga taxawee ak kenen. ak keneen ma ne pourquoi pas ambassadeur ñi naan ma professeur ñi naan ma ne leen d'accord professeur oui je suis un professeur en tant que euh, sama profession mais là je et être un ambassadeur moo tax ambassadeur bi ñëw ku euh, ma ma def ay son yoo xamante ni boo ko déggoo rek danga naan kii day plaider comme lu mel ni immigration clandestine mm-hmm. waaw lu pour ni Fight for Africa une musique qui est ni soo ko déggee enfants de la rue violence faite aux femmes y a un clip mu ngi daw de daanaka ci yenn télé donc du coup l'ambassadeur, ambassadeur le le foofu surtout l'ambassadeur des enfants parce que damay suis tout le temps avec xale yi créer un centre d'insertion sociale et de formation depuis 2008 tey jii mangé que ay xalé yo xamanteni ni maa formé ñi intégré nañ équipe nationale junior ñi ñu ci club yi ñi tukki nañu tay sama centre lañ jógee te centre l'âge laajuma kenn je forme les enfants je fais tous les moyens qu'il faut voilà donc mu nekk loo xamante ni euh, tur je bi mu je jëlee jógee na foofu ñu daan wax ambassadeur des enfants léegi ambassadeur des enfants Bob aussi comme que ñun gis nañu ma toucher un peu sur les femmes ci yeneen domaine euh, domaine comme euh, violence faite aux femmes vois association sauvons les femmes jox ma seen président ma ex seen président qui défendre cette cause partout ci média yi boobu tamit day gën a xaw yaatu donc léegi ambassadeur tout court mm. ça va globaliser <laughs> ñëpp quoi. voilà sama problème mooy Sénégal fii bonne nee musique suñu xel suñu njëkk dem mooy maanaam lii di mbalax. Mm-hmm. mais pourquoi nga am nga nga di choix. Mm-hmm. que wéy loo xam peut-être day maanaam peut-être déranger lii di gouvernement bi wala day day day dénoncer. Mm-hmm. pourquoi ce choix là. man je peux faire du mbalax mais ça va pas ça va pas porter ma voix comme ni ma yóbbu ko ba fi mu nekk tey jii comme tey jii bu ñu demee ba ay chaîne euh, internationale yi ma di ma teg donc parce que damaa jël sama musique internaliser ko def ko du façon d'une façon boo xamante ni ku ko déglu day xam ne là c'est une musique internationale donc moo tax ma ma boole rap slam soul bi slow lépp boole ko ci biir acoustique je joue de la guitare yëpp ma boole ko globaliser ko des fois ñun danaan ma yow sa sa style gisaguma ko nan nga koy wooye ma ne leen salaam mélodie <laughs> waaw loolu laa ngay des fois ma leen rap salaam mélodie ba créé benn groupe Facebook tuddee ko rap salaam mélodie boole ci salaameur yi rappeurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ci groupe boobu noonu donc mujj bi foofu la style bobu jógee quoi rap salam mélodie c'est pas facile du tout parce que sénégalais boo hmm. salam salaam dañuy jàpp ne salaam benn kii boo xam ne maanaam tubaab bi ko moom maanaam ñun hmm. Sénégal hmm. xamuñu ko bu baaxa a baax même féké temps yi sax ñu par nak nak di ko traduire en wolof. waaw parce que dafa nek musique bo xamante man je pense que war nañ ko gëna valoriser même ici au Sénégal partout en Afrique parce que ça enseigne tay jii européens ñu ngi dem ba diko def sen biir école mu bokk ci seeni programme élèves yi di salaam ci biir classe. di développer ay thèmes en salaam parce que salaam du lenn lu dul génne li nekk ci yow. Hein? donc du coup mu ngi mu ngi juddoo Amérique bañ koy def c'était juste que ñi ko njëkk a def groupe bi ko njëkk a def dañ ko def pour woo ñin ñi ñuy wax seen xalaat di wax li nekk ci ñoom di génn ci nekk ñoom ñuy partager moo taxoon da ngay gis ko yow jël micro bi wax wax ba xaw ko wayantu ainsi de suite léegi mu dem nat ba commencer dem français yi jël ko ñeneen ñi jël ko ainsi de suite mu nekk loo xamante ni dañ ko war a valoriser même fii en Afrique parce que mën na indi apporter lu bëri ci suñu xale yi suñu xale yi bu ñu ko doon foowantoo tey mën na gën a développer seen connaissance ñu leen di jox ay thème naan leen dañ ko war a salaam comme tey jii soo nekkoon sa classe daal di ne suba war nañ salaam ci thème nangam xale yi ils vont aller à la recherche du savoir suñu demee ku ci nekk da ngay gis dina gëstu ci loolu bind ci test bu ñëwee salaam ko dans sa vie aussi il peut salaamer ci ci dundam ainsi de suite lu muy dund à la maison ainsi de suite suite loolu yëpp day gën a développer cerveau xale bi ma jëpp euh, benn kii boo xamante ni war nañ ko mën a gën a valoriser ici quoi di nuyu bu baax a baax sama mag jooju kooku di Ndeye maram Guèye fos na salaam ba sonn mais xam nga sama bopp bi comme ko daa baax <laughs> mooy loolu toog naan damay liggéey day métti trop trop euh, mais euh, am na tamit inconvénient bu ñu xoolee fii si Sénégal mm-hmm. parce que le fait nga choisir musique boobu te ñun Sénégalais xamuñu ko mbalax bu saf sàpp la ñu xam mm-hmm. ah pour ñu gars yi suivre la wala maanaam lu nga si war am dëgg-dëgg si wàllu koppar xaalis est-ce que di nga ko si am. loolu bokk na ci sama combat bokk na ci sama combat. bokk nañ sama combat ñen ñi valoriser ko motax sama salam euh, xawal différent tuuti ak yenen salam yi parce que dafa gëna a xaw xam nga Sénégal dafa bëgg lu xumb man sama salam dafa gëna xumbu dafa gëna xumbu xumb que yeneen salam parce que yenen salam mari mën nañ ñëw wax nank def ni tek ko ci xaay wax ci mbëggeel de suite mais man je viens avec engagement je fais comme kuy rap alors que dama ci salamé di rabalé salaame wayalé bo lepp mu doon rap salam mélodie comme ni ma koy waxee donc euh, sénégalais yi war naa leen mën a imposer sama style pourquoi pas keneen ak keneen ñëw ne imposer leen seen style donc euh, dëgg la c'est c'est c'est difficile de rivaliser avec le mbalax ah, parce que wax dëgg yàlla suñu patrimoine la mais en même temps aussi euh, comme que dañoo am ay doom am ay raq ñoo xamante ni war nañ leen mën a enseigner war nañ leen tamit mën a wax ni lii war na mën a bokk ci seen i musique yi ngeen di déglu mu leen di développer seen cerveau je pense que foofu noonu la ñu war a tollu parce que tamit boo seetee mbalax bi euh, nekkul lu may ñaawlu mais am na yenn mbalax yu may ñaawlu yeneen musique yi tamit nekkul lu may ñaawlu mais am na lu ma ciy ñaawlu comme wax yoo xamante ni dafay déborder ba xale yi di ko répété waat xale yi di ko répété waat comme rab bi boo ñëwee tey jii ngay rab ba ci yàgg ne réewatuma dama dof yeneen xale yi ñëw ju jël ko naan réewuma dama dof boobaa yow da nga ne xale yi bu leen réew léegi dof leen donc ñu ci ànd dem presse bi ñëpp daal di koy valoriser daal di koy yëkkati gonflé ko euh, suñu xale yi foog ni booboo gën booboo baax. andis que benn Cheikh Mbeng wax na ci enfant de la rue wax na ci violent fait aux femmes wax na ci immigration clandestine comme li ma naan nous ne pouvons pas être européens nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être américains, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être australiens ni indiens, nous sommes africains. Nous ne pouvons pas être chinois. Nous n'avons pas les mêmes droits, restons africains. I have a dream. I have a dream for my Africa. I believe in the better future for my Africa. One day, African united, has one country. Nous avons la plus grande richesse qui est la terre Afrique. Nous avons la plus belle des terres qui est l'Afrique. De nos jours, la jeunesse africaine envisage la route de l'exil, prenant la mer, tous ils périssent. Où est donc notre fierté De génération en génération, une seule omnégation l'immigration. Où est donc notre dignité L'Afrique a des valeurs. Mettons à jour notre système de valeurs pour que l'Afrique connaisse le meilleur. Mettons fin à l'immigration clandestine. Ce chemin n'est pas la voie de notre destin. Africa for Africa, Europe for European, let's you join our hand and say yes we can, Africa for Africa. Donc tu vois, donc du coup. c'est trop nice c'est trop mhm. cool génération de Paul comme je en plus poème de neex en comme comme j'ai l'habitude de le dire euh, la musique c'est la bande de son de notre vie c'est le passé c'est le présent c'est tout ce que l'on vit entre les deux dit en plus il faut que tu ñu euh, comme nous à chaque fois nous africains nous sommes a fier sur mm-hmm. nous. Afrique di si ñun mm-hmm. donc war nañ xamaat bu baax a baax suñu bopp voilà keroog dama doon euh, waxtaan ak benn muy waxtaan ak euh, sama yaay exemple rek mu toog mu yére bu weex mm-hmm. mu toog xool sama yaay sama yaay ne ko si yére bi non fa yëgoon africain laay doon parce que yére bu ngeen sol <laughs> daf leen di jàpp alors que ñu sol ay couleur rouge mhm. wala blanc muñu dag mais mënuñu sol couleur yëpp donc loolu rek maanaam feexte la maanaam suñu africain yi mais ba léegi ñun xamuñu ko suñu mbokk jigéen yi heureusement ba sama patron bi moom xeesal donc mu nekk loo xam ne am solo moo man mbokk mbokku na ci Wassare TV di leen fàttali seen émission l'homme de la semaine ñu invité artiste bii di Cheikh Mbengue l'ambassadeur moom man engagement laa war tout tudd parce que pour man c'est la même mm-hmm. kii yëpp pour man c'est la même chose en tout cas dafa doon xam am solo sànq si biir wax solo la maanaam si musique sénégalaise. muy mhm. kii di Thione Seck. yan rapport nga am yéen ñaar parce que à chaque fois sànq bi waaw maa ngi koy wax nee naa famille bi la c' est de la famille des fois sax gars ne ma da nga nduroog Wally ak yooyu noonu. waaw bien sûr fois <laughs> mooy mais c' est c' est la même famille. parce que Thione Seck ki ko ki ko jur yaayam ak sama yaay ñoo bokk benn baay. te mag Wally mosuñoo toog mosuñu gisee. pourquoi ça comme comme li ma doon wax <laughs> nee naa léegi. <laughs> alors il faut que il faut que c'est impossible. bon dañ toll léegi ci jamono joo xamante ni temps bu njëkk ba suñu suñu maam yeeg suñu parents yi ñëpp xamante woon waaye da ngay dajeeg sa mbokk ci benn lien sax doo xam sa mbokk la. mais attends ça parce que loolu nga ko yow nga bokk mm-hmm. ak di nga mu musu leen maanaam gisante. musuñ gisante xanaa ñoom Pa Mathien mu ma yaroon dool ñoom Sabel Dieng ñu ma yaroon dool. mais attends est-ce amul mm-hmm. benn euh, maanaam ñu laa ko gisee quoi. Mm-hmm. sama xaar lay wax benn contradictoire bu fekkee comme ni koy waxee la maanaam ñun Afrique dañu war a jëlaat maanaam suñu ay culture bopp. Mm-hmm. suñu culture dafa bokk maanaam ñu jaxasoo ak suñu famille. tubaab la mën a gis nga bokk ak nit. nga nekk cousin. surtout xamante mais tey Sénégal. Mm-hmm. ak culture bu ñu am yëpp. ñu xam mbokk mm-hmm. bokkul ne famille sociale. Mm-hmm. le fait nga dem ba yow ak waa Seck nga nekk ay cousin mosu leen mu loolu moo lay wan dund bi metti parce que tey jii koo gis mu ngi xalaat lu muy dundee nan lay def ba tekki mu ngi ci xelam ndaka lay def ba génn ci ku ne yaa ngi ci yaa ngi xool noo ci génnee life bi metti ñi di dañ dañi am na benn son bu nekk ci donc <laughs> non non foog mu fàttale ñun ñi tamit euh, nii lu am solo la mbokk. ñu xamante di saafoo daan dajee comme ni nga ko daan defee mais dund bi moo metti système bi moo changé su maam yi li ñu daan dundee ak ñun bokkul ñoom seen dund dafa neexoon ko amoon 500 francs da ngay noos ba doyal. mais tey ji loo laaj lu gën a ndaw ñu ne la 1000 francs jëm kaw lu ci gën ndaw. tey ji nga am nga nekk père de famille teel a am njaboot wala nga nekk soutien de famille nekk ci biir kër gi bëgg a dimbale say parents mais dootoo talati naan ay damay dem yendu ji sama mbokk damay dem. mais pas yendu ça se comprend. Ah, mhm. non ça se comprend pas. <laughs> franchement ça se comprend pas parce peut-être comme ni ko waxee sànq. Mm. Euh, yàgg Paa Wadien yéen a yéen a yéen a yéen a yorandoo. waaw ñu ngi déggante tout le temps et tout. Paa Wadien mm. ak ku wax Paa Wadien ne Momo Dieng. Mm-hmm. Momo Dieng ak waa seen. waaw ñëpp mm-hmm. xamante ne ñaar seen relation. Mm-hmm. peut-être est-ce que jotul kon nga dox si nga dox si maanaam peut-être nga dox si. waaw. dinaa ci dox waaw dinaa ci dox. Ah, parce que waa Jokalante seen bi am am ko bu fekkee ne euh, ñu xam ne ay mbokkam sax moo ngi dem moo ngi seqante ñoom. waay donc gëm naa ni peut-être mm. peut-être moo ngi dégg peut-être dégguñu en tout cas. ak mm-hmm. ku mu dégg teg waa Seck xamal ne Cheikh ak waa Seck ay mbokk la donc dañu xam donc war kon musique bi c'est dans le sang maanaam sa le sang c'est dans le sang parce que ñu leen jóg a jeeg mooy seen nijaay nga xamante ni bokk nañ ci ñi téewoon musique Sénégal daal daal di formé ñu bëri ay Youssou Ndour génn ci ñeneen ak yeneen donc du coup kooku mënoo génn ci musique donc nee naa la avant ma ciy dugg carrément dama daan bind sax di joxe kon yàgg na ci man voix beeg lépp ngi fi woon mais dama ne woon non duma ci dugg mais dalay xëcc ne la kaay salaam bi ma commencé woon nag salaam boobu nag laa eggali parce que salaam bi mënuma ko woon téye parce que fallait que may génn lu nekk ci man ma commencé di fréquenter di salaam ak ay salaameur yu mel ne Arif di dem sàmm di salaam si de suite affaire bi nag gëna a gën maa ëpp doole mënatuma ci lenn ak musiciens yi ma doon yi ma doon euh, yi ma yi nga xamante ni ñoom laa doon euh, ki euh, ménager ñu mel ni Riyama Riyama nga xamante ni jarbaatu fu Malade la ci boppam donc ma dem na ba amour bi di ma gën a dugg musique bi et tout ma ne xaar ma génne sama premier single pour combattre les enfants de la rue lolo indi sama dugg ci musique ma bind texte boo xamante ni dama ko tuddee enfants de la rue mm-hmm. woo ci Fred Alalum un de mes plus grands amis c'est un français mais il est ici Bon, bon, ma ko français ça sax day mer nee na nee sénégalais voilà <laughs> donc euh, il a épousé une femme sénégalaise même ça, bon, bon, ba ma depuis 2009 euh, il est marié avec une femme sénégalaise après mu marié waat divorcé waat marié avec une sénégalaise donc mon, il est sénégalais kooku mon quel mënu ci là, dañ Donc, koy nangul donc invité ko ci son un di enfant de la rue ñu def ci lu am solo.

Folie des hommes, emprisonnement des femmes, violence journalière, manipulation, excision, mariage forcé, victimes, emprisonnées, stop, évasion, ensemble, les femmes parlent, les femmes s'expriment, elles se défendent, combattent la douleur, combattent la folie des hurlements ignorés, ensemble, et se battent, se livrent à la joie de la justice, du respect, de la liberté, des femmes meurtries par tant de violences, viols, meurtres, séquestration, humiliation, privation de droits, violence conjugale, esclavagisme, domestique. Ensemble, ces femmes, ces projets, ces victimes du monde vivant de rêve et de liberté, la femme de l'ombre dans son univers sans issue. Femme livre parole. Ensemble, elle brise le silence. Union pour les abandonnés de la chance, les abonnés de la souffrance. Une femme des femmes. Mbolemi ñii li ñuy gis nii tukkal na seen fit fii fépp lëndëm cris bari crime indice mboole mi jigéen ñaa ngi jugandoo ngir yuuxandoo seen xeex xeexandoo seen jàngoro amul benn bis bu ñu duul dund mettit donc du coup mu nekk message boo xamante ne. c'est que je vous dis on mhm. <laughs> allah euh, mais day def benn entre mhm. parce que mënoo dugg ci violence de la femme. am loo xam ne peut-être actualité la. Hmm. Euh, te mu ñu si bañ a wax. Hmm. temps yi kii di Sitor Ndour ñu naan euh, information yu am dafa violé benn maanaam benn ménager benn euh, koo xam ne doon liggéey këram. Hmm. peut-être comme ni ko Sénégal di waxee mindaan boo xam ne. bu di koy violé. boo déggee genre action yooyu si kër koo xam ne yow na fi dégg nekkoon na fi directeur Koudou. kilifa la woon si réew mi. nuyu di delloo donc yooyu noonu dafa nekk euh, ay problème ay phénomènes yoo xamante ni jigéen ñu ngi koy dund am ñoo xam ne dañ koy noppiwaale am ñoo xamante ni pare nañ pour fësal ko pour défendre seen der am ñoo xamante ni ñu ngi koy dund mënuñu ci dara maanaam jigéen ñi boog ñu ngi dund ci millier bi muy milieu artistique di milieu domestique comme ni nga ko waxee léegi nii di yeneen i milieu jigéen ñaa ngi ciy dund lu metti lu metti metti te ñu bëri xamuñu ko man dama nek ko xamanteni je suis le président de l'association Sauvons les femmes dañuy wo ay dañu tégal ay problème dañu tégal ay situation xam bañ ne la ñi ñu koy tundu da nga nan dédét des veuves ñuy chantage des artistes ñuy ñuy chantage bureautique nga xam ñi nga nekk seen bureau nga ñew ñu chantage la fii ci dëkk bi ay kilifa ba ci amna na kilifa boo xamante day ji su ma ko tuddoon légui légui léegi léegi léegi ñu ne déedéet ah chantage loo xamante ni man non je te jure. bokk si gouvernement bi wala ku si wala mu doon peut-être mu nga jox benn indice nga bañ a tudd turam mais tur bi moom jar nga xëy tudd mais peut-être mu nga jox indice. non ça c'est dans le milieu euh, de la musique loolu c'était en 2015 mille quinze wala deux mille sama artiste mu bañ te daf may leer ni am na yeneen artistes yu mu ko def mu jàll. te ba léegi moo ngi woy c'est sama artiste boobu dafa désister. non musique kii maanaam musique. Euh, non ci ci ci ay production ak yooyu noonu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni turam siiw na bi mais du ko wax. sama xel dem mais bon du coup mais du coup da ni ñu ngi dund lu metti lu metti man du ma jaxase du ma Sénégal du ma tas Sénégal lu may régler xam naa à ma façon à ma manière mais ñu je te jure est ce que moo boobu laa utiliser waat c' pas contradictoire nga ne xeex pour jigéen ñooñu maanaam à chaque fois bu leen ko defee ñu génn di ko wax yow tamit nga ñëwaat di nëpp genre yi. non du ma ko nëpp maa ngi koy ñu ngi dox ak ñu ko man damay dem AGS damay dem AMO Madame si bu AMO sama sa lien émission bi su ma ko paree da koy lire amul benn lien sama émission ma def te du ko lire je suis un de leurs partenaires. ñoom dañ fi nekkal di défendre jigéen ñi. mais le fait nga toog ne. mais yooyu noonu am na yoo xamante ne c'est pas l'appel de médiatiser mais bu jàlloon wala viol amoon ci boobaa Sénégal dinañu dégg mais dama am koo xamante ne dafa amoon fulla xam fu muy taxaw xam lu ne ci ginnaawam donc bu fekkee am na ñoo xamante ne ils n'ont pas le choix elles n'ont pas le choix on a toujours le choix sax mais am na ñoo xamante elles vont se dire que elles n'ont pas le choix elles veulent réussir te ci lii la ñu yaakaar pour réussir donc. voilà amul pexe. amul donc. voilà c'est léegi day am ñoo xamante ni nag dañuy bañ mais am na ñoo xamante ni dañuy nangu jooy ci pet. di ko nëbb di ko jooy ci pet. ba duñ ko mës a fàtte du mësa génn seen seen seen live am na lu ñuy wax euh, promotion canapé mais loolu ampagaay la fii au Sénégal. au Sénégal c'est ampagaay ici. te yooyu noonu dañ ko war a xoolaat bu baax ñi nga xamante ne dañ leen teg fi ñu wal fi ñu leen teg pour ñu liggéeyal askan bi ñu liggéey Sénégal nañu gëm suñu borom. te jaarale mbir mi ci yoon. mu doon loo xam lu am solo lu ñu may si waxtu bi ma fi mel ni moom taaba jeex waaye tamit du mën a jeex mbokk te waxuñ si clip bu bees bi xam ne moom nga génnee euh, muy lii di mbënd bi mu doon clip boo xam ne comme encore une fois day sensibiliser di yéene ñi waaye tamit di daal bu baax a baax suñu kilifa yi yoo xam ne ñoo nekk njiit clip boobu lañuy dem daal di saa naat te ñëwaat si biir plateau eh ñu nekk ci mbënd bi. kuy sowetul kuy sowe ñun askan baa ngi yuuxu walla kuy sowetul kuy sowe ñun bu tawee ñu ne mën waay kuy sowetul kuy sowe ñun banlieue baa ngi yuuxu walla ok yow maa ngi góor wekk lépp góor yàgg naa di xaar fii lu ngeen ñu di goon jàkk si ndox bi daaw rekk la yàq gox bi mënatuma nooyi ndax lii bàll ci foos bi guddi du bëccëg doo jàll mbedd yëpp a tëj nguur gi di këccët tóor dàll fit yi dafa rëcc doon fi diggee ñu fal la tey nga jaamuñu gaañ nga ñu xale yi viire ndaxte jànguñu ñoo ngi nii tey yaakaar bi rek la ñuy dundee askan bi tàyyi golo bi di béy ba bu dundee courant bi coupé ñuy xuus di risqué saa su nee gën a ti jaaxle baat ci kaw a kaw di yuuxu dee asamaan si xiin tàmbali dënn yóbbu suñu fit fëkk suñu dënn muy wiis ñu nekk tiis bu tawee rek ñu mbënd waay waay li kañ lay jeex suñu xol li mën a féex timis ñu nekk si lëndëm duñu am sax fuñu tëdd dëgg-dëgg joxu leen ñu gëdd ñàkk kaaraange waral suñu tiitaangeeg tumuraanke kañ la ñu ne ci naataange digg yeeg nax yi daal dafa doy at bu ne ñu tàmbalee jooy suñu ndoxu bët yi ñu ñu koy fompal suñu ndoxu mbënd ñu ñu koy pompal. mu nekkoon clip boo xam ne bu am solo la sa veut dire que chaque jour day nekk li di actualité lii lañ soxla maanaam suñu artistes yi soxlatuñ loo xam ne dañ koy woy Sénégal jigéen daal di ko TikTok un mois après mu daal di xewi te du ñu amal benn njëriñ. nu ko sunu papa Thione Seck doon waxee comme que yaay mbokkam. <laughs> woy bu woy maanaam bu yeetawul waaw xaw ma lan bu yeeteewul wax leneen lu lu lu lu luy safar. voilà donc du du coup loolu message boo xamante mm-hmm. vraiment artistes yi war nañ ci jàngee. parce que ñun nous sommes des enseignants nous sommes des porteurs de voix. Mm-hmm. ñun dañuy déglu duñu ñu suivre ñu am ay idole ñun ay modèle lañ dañu war a jaar ci yoon bu baax bi di wane la bon exemple xale yi nga xamante ne ñu ngi topp suñu ginnaaw mën ci jaar ñoom it mais bu fekkee ñun dañoo jël loo xamante ni musique buy safaan la daal ne moom la xale yi tamit loolu la foog ci loolu la ñuy jàng ci loolu la ñuy roy te loolu mooy wëy boobaa ça va prendre d'autres tournures lu fi suñu maam yi bàyyi woon ñu mel ñoom Thione Seck tey ji ay maam lañu donc du coup ñun ci boppam am nañu combat bu ñu war a mëne moom mooy fexe suñu musique doon musique bu yeete bu am njëriñ musique boo xamante ni partout dans le monde war nañ ko mën a déglu parce que ñoom dañ daan daan dégg partout dans le monde. mais dama dégg si biir clip mm-hmm. euh, mais sa jàppoon ni timide maanaam def nañ leen waroon leen war le fekk ñu jël des milliards def ko si biir est-ce que problème bi nekkul maanaam suñu ñii di population bi. ñun suñu problème moom mooy fu ñuy dëkk duñ ko xool. loolu di problème majeur la. voilà donc assainissement dañ ko war a xool saytu ko xool foo xamante ni dëkkuwaay la ñu dëkk fa mais bu ñu rek dali di engagé wu fo xamante ni fii palaasu ndox la comme da ngay gis Kër masaar mu doon place ndox. sama am na benn son ma bind tuddee ko Kër Massar xam nga doom Kër Massar laa mun maa way ta way ma ci Kër Massar mais même su may way ci sama dëkk sax dama fay indi message boo xamante ni ku ko déglu da ci am xam-xam parce que maa ngi jëlee Kër masaar ba muy doog a door nekk àll ak léegi. moo tax ma ñëw ma ñëw ma ñëw ne ma ñëw ne Kër masaar ne pleure pas parce que tey jii ay rabu àll ñoo fi nekkoon une forêt dense. des champs mhm. ñëw ratisser lépp dëkk. ma ne ko ne pleure pas ma si vite ma commune est devenue département c'est là où j'ai passé ma passionnante vie de boy ma lay xol sama xol di may bëgg mais on est lié à jamais je ne te quitte je t'aime, mais jamais mon amour ne se brise pas. T'as tellement changé, mais l'histoire retiendra. Je me souviens de ces soirs où maman est ses C'est sous les cailles Même si les gens ont remplacé tes beaux champs par des maisons, l'homme avec ses raisons, tu peux être fier de toi, t'as eu de belles saisons. lii damay bind dama koy bind sama village sama bi nga xam ne mbooj mbooj a baax sama village que ak Thiès donc genre dëkk yooyu nga xamante ni champ la woon dafa amoon ay ay rivière yoo xamante ni place ndox la woon tool yi ay palaasu ndox daf ci amoon est-ce que yaa ngi gis fi may waxee donc place ndox yooyu noonu ñu ñëw ratisser dëkk bu ñuy dëkk dañuy dëkk ba dëkkaale ci place ndox yi léegi su tawé rek ndox mi day jëlaat place am maay naan euh, foofu tamit fin bi maay naan mais Kër ça, à chaque hiver l'homme subit des terribles inondations donc inondation yooyu noonu ñuy dund moom cours d'eau yi nga xamante ni moo fa ñëwaat. à chaque hiver l'homme subit de terribles inondations c'est toi qui reprends tes cours d'eau moi qui te connais depuis petit, je sais que t'as mal, mais que Moussa ne pleure pas. Donc, faut la dire, moi, refrain, ouais. quoi. Donc, euh, lors des inondations, tamit mis da ci jouer, bu ñuy assainir bu ñuy dëkk nañ xoolaat fu ñuy dëkk nañ ko saytuwaat xam ni ndox duñu sonal après donc a noonu day ñëwaat donc foofu noonu problème population bi la mais notre problème mu état bi mooy dañuy ñëw dig ñu te duñu def parce que ñoom bu ñu ñëwee ne dañuy résoudre le problème alors que problème bi à chaque année mu ñëwaat donc le problème ça va être quoi est-ce que est l'inondation ou bien notre état parce que tey jii Macky Sall ba muy jël euh, nguur gi dafa fait une inondation jeex na Kër Massar j'étais témoin de ça parce que man ci ñu njëkk a de Kër Massar ci laa bokk ba mu waxee loolu ñun dañu ne nañ ko mais quand mu a def na les moyens boog li ñu qu'il faut ba ñii nii on parle de sept mille six cent euh, euh, sept cent soixante six milliards yoo xamante ne def nañ ko sur le plan décennal Kër Massar nee nañ def nañ fa quinze milliards pour canalisation léegi tey jii nga ne loolu def nga pour canaliser mais ba léegi ndox fa mu doon taa ba léegi boo demee fekk ko fa chaque année bu tawee fi daan inondé mooy inondé waat mais tamit donc quel est le problème ana milliards yooyu fan la mais lan tax ñuy ci mbënd bi man je suis victime je suis victime madame, je fais partie de ceux qui sont des victimes ci inondation chaque année sama koñ day taa ba dugg sama biir kër damay dem toxu ba ndox mi demaat ma dikkaat defaraat dëkkaat dafa metti am ci ndox mi la ñuy vidéo ñi waa ji doon wax lii maa ko moom donc du ma fa jaar mais c'est vrai moo ko moom parce que tey jii bu ballee bu foos bi ballee ba génn ndox mi li fa li nekkoon ci foos bi day ànd ak ndox mi jug bu fekkee ndox mi dafa yegg benn niveau bi day ànd ak moom dugg moom bu amul tey jii fu mu dëkk ci lu muy def day dem ci mbedd mi dëkk fa mais day des ak ndox mi di dund ak moom dafa metti ku ko dundul nag mënoo ko xam mais sinistre yi amuñu lu amul amul maanaam si ñu ku gën a jeex xol ko sinistré ndax tellement lu ñu dund mais nag dañ leen di massaw di wax état bi ngir yàlla nañu xoolaat le problème des inondations ñu régler ko une bonne fois pour tout fi nga xamante ni canalisation war na fa jaar dem seen yoon parce que Dakar waru mën a ñàkk ndox di déverser on est une presqu'île y a des rivières fleuves lépp ngi fi boo xamante ni am na ay bassin de rétention Kër Massar rek am na mais canal yi baaxu pourquoi baaxul xanaa lañ koy defaree la wala lañ fi wax lañ koy def defuñu ko fa. defuñu ko fa c'est ça le problème on travaille mal si on travaille dans la tricherie mm-hmm. mais dafay feeñ en tout cas les responsabilités sont partagées selon moi. Mhm. Euh, parce que bu fekkee état bi def na moom milliards mon nga fa def ba léegi amul benn euh, solution boo xam ne am na fa waaye ti population bi tamit à chaque ñoo ngi fiy def canalisation bu ñu defee canalisation jël seen ay bopp xarak ay seen mbay yëpp def ko si canalisation bu mu fat donc ñoom tamit comme ni ko waxee à chaque fois rek euh, les responsabilités sont partagées dañuy dem si dernière qui, parce que ñu doon wax dafa mel ni cinq minutes rek moo si des. Mhm. Euh, noo gisee fu mu toll actualité politique bi bon man je suis un panafricaniste. waaw. Euh, mais néanmoins, na ma famille ñu bëri ay kilifa ci politique mais moi je suis un panafricaniste donc à chaque fois je suis du côté de la population lu ñu bëgg loolu laa leen di defal. lu bëgg message bu ñu ma yónnee moom laay waxee ji xoluma ci kenn xoluma ci sam xoluma ci ma demba sama grand frère bu nekkoon euh, ma fi place Macky Sall toog lu ma war a wax dama koy wax même si ñoo bokk benn deret parce que Sénégal moo ma ñor du leneen donc nañu ànd liggéey seen biir waa bennoo nañu bennoo xam nga des fois damay gis bennoo ne ñoom dañu bennoo ba tudd bennoo bokk yaakaar hmm? bu ñu nee dañoo bennoo loolu noonu waru doon un simple slogan dañ ko war a wéyale parce que ñun ñëpp am lañ bët ñoom ni ñuy doxalee ñun ñu ngi koy gis waa askan bi dañuy gis ki nekk bennoo kee nekk bennoo ku ci gis sa morom mel ni say butit nga gis ki nekk bennoo kee nekk bennoo ñuy xeexante seen biir mu ngi mel ni say jii benn kër goo xamante ni benn famille la mag ak mag ak rakk ak euh, nijaay umpaañ ñëpp ci biir kër gi kenn jubawut dañuy xeex di fëggante are di xuloo di saagante nday ak baay ak ñëpp um, maam ak ñoom ñëpp di saagante buñ amee gan ñoom ñëpp ñu ñu neen on va faire semblant <laughs> ñu juboo ba gan bi dem léegi dañuy gis bu euh, campagne ñëwee rek ils vont faire ñu doon saagante ah tey jii diw ak diw ñoo bokk benn secteur ñoom ñaan ñëpp bennoo lañ ñuy saagante mais bu campagne ñi tag rek nañu def semblant ñu jubo ñu boole leen ne leen ñoo ànd léegi nag ñoom ñëpp ñu ne eh gars yi juboo nañu de ñu ànd dem ba kii campagne bi jeex voilà gan gi dem gan gi dem kuy kuy di dalat, moo tax ma ne nañu bàyyi slogan ñuy wuyoo suñuy tur xam nga lu lu waay di woote sama sama nijaay mu chon <laughs> sek mu ngi koy wax lu waay di woote da koy da koy nduru donc nañ koy nduru yeewi walu nañu nduru seen tur nañ ne dañuy yeewi askan bi bu mu doon solow gan nañu yeewu askan bi ci dund bu cher bu ñuy yeewi nañu yeewi ci askan bi ci mbënd bu ñu yeewi nañu wee yeewi askan bi ci chômage bu ñuy yeewi nañu yeewu ci askan bi ci dund gu neex sécurité nañu yeewi askan bi ci loolu wàllu tamit wàllu askan bi ci loolu ñun ñëpp Sénégal moo ñu ñor Sénégal moo ñu tax a jug muy bennoo yeewi wàllu mais nañ koy def mu naaj si nu mu gën a rafetee Sénégal gi yëpp njëriñoo ci dañu bàyyi politique politicien maanaam politique boo xamante ni tu travailles pour toi pour soi donc chacun fait pour soi voilà donc donc da ngay gis koo xamante ni day investir sax mm-hmm. ci politique ni muy investir da ngay lenn kii bu toogee investissement am bi da koy jëlaat un politicien qui est laa investir ba toog li mu amul woon ci dundam nga gis mu commencé di ko am amul woon oto 4 x mu am ko amul woon R plus mu am ko yow mi ko fal yaay ñëw di ko waale mu lay sànni ay 5000 francs te mu war laa liggéeyal ba doo ko tale waale yaan yaa ngi say code di lijjanti donc foofu la ñu war a xoolee la politique. mu doon loo xam ne lu am solo lu ñu may si wax tamit jeex na xanaa rek dañ koy bàyyi kii di Cheikh l'ambassadeur Cheikh l'artiste engagé mu daal di tàggatoo. Wow, donc lu may tàgga tàggatoog Sénégal gi rek moom mooy ndaw yi yombe, bàyyi yoon be immigration clandestine. c'est tout ça te ba léegi dafa mel ni mu ngi continuer. exploitation des enfants ngir yàlla nañ ci wax ñu bàyyi xale yi ñuy exploité. violence des femmes ñu bàyyi femmes yi ñuy femmes yi soxna lañ femmes yi chantage te dimbali leen ñooy suñu yaay ñooy réew mi femme mooy dëkk femme mooy dundal waktu wax tuuti femme yoo xam ne tóot leen góor ñi seen bokk de bu leen wax xam ne am na góor non loolu dama koy dégg des fois ñu naan violence faite aux hommes ñu bëri dañ ma xam mais Cheikh Mbengue kañ ngay woy violence faite aux hommes ma ne leen mais taxaw homme bu fi taxaw bañ lay violenté kooku moom mënuma laa défendre parce que un homme doit être un homme doit doit agir toujours comme un homme gis nga agir comme un homme yàlla xam na ni ku jigéen dina jàng si yow loo xamante ne même bu doon violente du du violente parce que góor ni ko yàlla bindee am na noo xamante ne mën nga ko mel ba changé ku jigéen kooku noonu sans violence bañ lay violenté yow mais su am na benn góor booy doon mais dañ lay violenté man dañ maa violenté en tant que góor donc di coup <laughs> <laughs> waa donc donc loolu tamit war nañ ko war nañ ko war nañ ci saytuwaat voilà quoi donc moo nekkoon sama message waa Sénégal doon dëkk boo xamante ni dëkk jàmm rek moo ci xew waaw comme loolu fa woon suñu maam yi nga xamante ni suñu homme religieux yi nga xamante ni jaar nañ fi waaw muy ñoom Serigne Touba si El Hadj Malick ak ñeneen ñoom Baye Niass ainsi de suite maam Limaamu Laay ñoom ñëpp ñaan nañ fi jàmm ak salaam keneen mënul wax ba jàmm ak salaam boobu deñ fi loolu rek moo fi mën a am ku fi ñëw pour yàq tamit da ngay solo sa bopp tamit ñu bàyyi médias yi tamit maa ngi leen di lancer benn message yéen médias yi waaw bàyyi bàyyi leen di valoriser kasaw kasaw waaw jël benn affaire boo xamante ni amul benn njëriñ ngeen ngeen valoriser ko tellement que suñu xale yi sax dañuy foog ni lii nii lii moo gën lii mooy dëgg ci la ñu war a ci la ñu war a nekk moo à part même la musique ah à part la musique waaw waa dañuy jékki-jékki nekk ci ay ay ay détails yoo xamante ni fa la ñuy nekk di ko di ko di ko valoriser di valoriser ay détails ba suñuy doom sax ci ay détails la ñuy yaroo àdduna yëpp ci détail la alors que war nañ leen mën a benn xale tey jii comme ñu décorer benn xale boo xamante ni euh, moo dàq kii lépp Sénégal wala moo dàq bi am na booy yoo xamante ni tey jii ñu ngi créer ay affaire yoo xam am benn xale bu créer ay yoo xamante ni waa kooku noonu duñ ko jël ñu valoriser ko yóbbu ko mu jàngi. mais moo tax nga di ko xam. ñu ngi di à bi. wala wala mbokk internet bi. Mm-hmm. moom loolu daal di ko zappé dem saan ne moo ñàkk fayda alors que ñu da leen di tegal bii tegaleen bee donc ñu ñooy choisir bu leen neex ñu teg mu ñu maanaam nii rek la teg ku jàng rek la teg donc il faut ñu xool des fois des immatures comme moi ñi ñi teg donc maintenant pour créer d'autres immatures non pas pour créer d'autres immatures ah, mais après après ça c'est à vous maintenant nga daal di choisir ne man kat moo ëppoon njëriñ baa ma silaan lii mhm. kii amul ma njëriñ baa ma bàyyi ko donc ñun euh, dañ lay tegal mun na la tegal suppu kànja mun na la tegal tegal ceebu jën léegi bu la neexee yow a neex boo neexee nga ne ceebu jën moom a neex donc loolu amoo mais dañuy gis ni maanaam bañuma li nga wax mhm. dama koy gis loolu xam naa ko damay gis média yi nekkul média day toog tout toute la journée di teg kasaw kasaw mais mais nañuy gën a valoriser gën a gën a valoriser mhm. li nga xamante ni mooy enseignement bi nii day day jàngale ci lu baax day reçu leçon leçon <laughs> reçu. merci c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous mais avant ça je vais souhaiter joyeux anniversaire à Diwali Couture Diwali Couture bonne ciseau d'or longue vie à toi comme le cœur comme nous l'avons d'habitude, le nombre d'années qui passent n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'en avoir le maximum possible. Joyeux anniversaire à toi. Bon, le 15 août, le rendez-vous des chics, le rendez-vous des bronchers, l'élégance, le raffinement saint-usain. Donc, comme nous, d'habitude. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre. Maintenant, il est temps de donner du temps aux autres paradigmes. En attendant, je vous conseille de manger beaucoup de bananes. Merci à toi, Khalil.